leeral la beneen bi ci des yàlla rek juum dañu génne Karim Wade mi nga xamante ni dafa am nationalité de bu deret wutiwu ko da cee juddu mais tey Wade ni mi ngi garde en vie am na ñeneen ñun ni mi ngi ñoom kon xam na ni yàlla rek juum tey nag li am solo te metti sama xol ay satu le président de la république mérité wul ko teg génn bu rafet lañ ko yéene parce que def na ko ci réew mi. mais tamit est ko dal tamit est tamit amu ci part de ban part de responsabilité. ah waaw parce que xam nga monsieur tamit moom moom mooy moom mooy moom mooy jël mooy jël ay nit mooy teg. te euh, li ñuy wax rek kon léegi nii euh, ñàkk euh, tànneef bu baax ak yéex a hésité nangam ak nangam gis mi ngi nii ñu ngi koy xaar mi di ba léegi ñëwagul yooyu tamit. est-ce que nekkul yoo xam ne parce que xam loo gis tamit am na part de responsabilité bu boo xam ne mooy tegu ci kaw ndoddu euh, ki nga xam ne moom la yëf yi dal. ndax nee nga mérité wu ko waaye. est-ce que amul part de responsabilité ban façon part de responsabilité. le président de la moo deful dara. li mu def mooy woo Sénégalais yi. ñu hmm. leen ñëw leen ñu waxtaani réew mi rëq-rëq yi fi amoon yépp nañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko. Hmm. ñu waxtaane ko indil ko ni ko lii lañ ca jàpp mu ni lépp laay validé xanaa kon loolu mooy responsabilité ban responsabilité hmm. ci ban façon nga koy waxee ci ni mu tànnee magistrat yi waaw euh, euh, ni mu tànnee wala ni mu tànnee mais ni mu tànnee ñi muy àndal waaw loolu loolu beneen affaire la loolu beneen beneen beneen la hmm. parce man damay wax ni sa papa dani ma boo dee ànd ak nit mm-hmm. te bëgg koo jariñ danga koy xelal te boo koy xelal bu ko ragal mm-hmm. bu ko yaakaar mm-hmm. te bu ko rus parce que nit ki su fekkee ni sa liñ naan sa sa gagne-pain ci moom la ne yaa ngi yaakaar ni moom li mu la jox ci pouvoir yi ko yàlla jox bu ko nangoo dootoo am dara. Mm-hmm. mën naa am doo ko wax dëgg. Mm-hmm. <coughs> kon ñi ngay àndal danga ko war a sélectionner. Mm-hmm. façon boo xamante ni day am ñoo ay nit la ñuy doon yoo xam ni dañuy wéeru ci yàlla. gëm yàlla ba pare yaakaar ko. ndax koo wéeru ku dul yàlla mu rocc ko bala fa. koo yaakaar ku dul yàlla yàlla la yaakaar kon ñi ngay àndal nag ñu jara seet la lool nag kenn du ko tànnal nit mhm. kenn du ni nit tey jii ma ànd ak yow mhm. tey jii ma jege la tey ma nekk sa conseiller mhm. je pense que loolu kenn du ko wax kenn waaye àndu nawle dara daa waaye ànd ak nit ki te xam ni yàlla leen boole te ba ngeen di ànd neewoo yàcc toog sa kër mu jëlee la fa ni la ñëwal ànd ak man mais danga doon doon góorgóorlu ba ngeen xamante ci terrain bi yàlla def muy wut réew mi nga ànd ak moom wala nga demoon nekkoon ci beneen côté waaye ñu dem ba yàlla boole leen ngeen di liggéey ndax intérêt wu population bi je pense que bu boobaa bu ngeen àndee da di ànd ànd nawle loolu lu am solo la bu fekkee loolu la vraiment damay mal à pour wax ni xëy na entourage am xëy na ñu ko jege xëy na nangam nangam mais li ma xam mooy le président Macky Sall vraiment mérité wul lii tey nag li am solo ay satu te xam mooy du date